Sénégal ngeen am fi njariñ trop yor njaboot di dund ci lii ñu yor ay événement muy contenu kon dañu war a def benn synergie synergie boobu moo ñuy permettre ñu atteindre suñu ay objectifs mu waxaat benn mbir bu am solo man paf su ma leen ne damay accréditer ay deux cent wala trois cent sites ça c'est pas possible et je n'y je n'y pense même pas aujourd'hui dans l'ordre normal des choses li gën a jafe am ngeen ko muy une structuration de votre de vos regroupements vous êtes deux war ngeen mën a toog waxtaan am des mandataires d'une manière sélective ñu seet ci reporter yi tant de structure yi ñu ci war a accréditer au niveau des technicien tant de structures yi nga xam ne war nañ leen mën a accréditer ñu discuter ci emplacement bi ak installation yi ba looleen ma jéppi du ma leen jéppi man loolu mooy objectifu daje bi te it nous sommes assez matures ki dem ba jël ay millions wala des centaines de mille jënd appareil bi jaral ko bàyyi këram suba ba ngoon di wër mais c'est parce que vous êtes armés de courage d'ingéniosité d'engagement et de volonté pour réussir. Mais est-ce que cela veut dire que réussir aussi vos objectifs, c'est déranger Non. Donc, président dama lay gërëm di la sant ci ndaje mi parce que bi ñu ko waxtaanee rafetlu nga ko trop nga tàllal ma loxo ma tàllal la loxo moo waral daje bi kon léegi affaire bi neex na li may ñaan. mooy président buur man awma lu ma leen di xañ comme ni nga ko waxee à l'entame de vos propos man Sénégal moo ma ñor gis nga réew mi c'est pas pour le plaisir de vos beaux yeux moi je n'ai plus rien à awma amatuma lu may euh, nan laa ko mën a waxee loo xam ni mën naa ko prouver ci réew mi déedéet du ci sport du ci agriculture du ci jeunesse du ci développement lii benn pàcc la ci suma life xëy na yàlla moo ñu nattu ci lii mais li ma bëggu rek mooy dañuy dem ci bis boo xam ni du bis bu yomb bisu téll téll la bisu rajax rajax la te dama bëgg ñu rafetal nekkin wi tey mënoon naa ni dama ci ànd ak ITV ak 2STV rek yam ci je suis assez outillé pour faire ma communication muy ci mbër di ci sama ay relation di ci réseau yi mais dama leen a fekk ci biir ngeen ci mbir mbir mi ngeen di sama ay doomi ndey ñi fekk ma ci biir mbir mi ñu ànd di bokkandoo bis yu samedi dimanche ak lépp lu mën a xew kon il faut que ñu bokk mais nañ leen ko rafetal d'une manière responsable <coughs> je pense que la balle est dans votre camp maintenant mooy président je suis open à une proposition au niveau des accréditations bien que c'est pas le premier point nga ni ma El Hadji Pape Abdou je propose que ci reporter lamb yi ñu temps techniciens yi ñu accrédité temps ñu waxtaan ci maag yow juboo et vous verserez le contenu de nos conclusions à vos membres que personne ne m'appelle individuellement donc je reviens sur mes propos que personne ne m'appelle individuellement pour me parler d'accréditation j'espère que ça c'est la première décision prise Le seul interlocuteur que j'aurai en marge de cet événement qui sera organisé le 5 décembre 2021, Inch'Allah Rabbi, le seul interlocuteur que j'aurai avec sur les réseaux sociaux, site web nangam nangam ak yooyu, Buur Géwël mooy suma interlocuteur. Je pèse bien mes mots. Sur les réseaux internet. c'est buur géwal la ma ak ñeneen li nga xam ne nag mooy presse écrite di presse bi nga xam ni ñoom laa signé sama ay événement muy ITV ak 2STV loolu suma diggante ak moom la defe ne li boobu leer na président et j'espère que vous validez ma proposition kon gars yi déggoon nañ ko alhamdulilahi rabbil alamin leneen li may ñaan mooy que président ba samedi bii ci mujj je vous prends à témoin yéen ñëpp y a de ces comportements yi nga xam ni bu ñu amee jafe-jafe ci làmb comportement yooyu moo ko waral bi am ma seen dugg see ci làmb ji nan la gaa yi def président ah non da wax ci kaw président njaboot gi la. daw topp ko te chaque jour ñu ñu jooytu loolu mooy deux cent deux cent voilà ça crée une désorganisation ça crée de l'insécurité alors président loolu aussi dañu ciy xaar nga joue ci benn rôle sensibilisation ñu respecter consignes yi nga xam ni téye nañu ko fa arrêté nañu ko fa mais boo xoolee Eumeu Sène dafa dugg si rek lu waay doon def banga ko di dàq mel ni kuy dàq lapin alors je pense que yooyu ay ala yàlla ci suñu ay collaboration nañ leen rafetal nekkin wi moo ñuy gën a jox personnalité gis nga li nga xam ni moo lay dundal muy affaire bi nu mu tudd caméra bi di téléphone bi ngay filmer nangam ak nangam boo demee ba toog teg ko toog ci say njaboot nga toog xam ni lii moo doon mooy sa arme pour que nga mën a am indi loo indi sa kër da xool lii ni nga ci nekkee nan la ak naka la. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas en classe ni en amphithéâtre pour se donner des leçons. Non. C'est à partir des constants euh, des, des constats que ci la ñuy évoquer sujet bi yéen ñëpp ñooy nekkandoo chaque samedi chaque dimanche ak yeneen événement bu amee mais nañ leen xoolaat mbir mi honorez votre président parce que bu mettee moom ngeen di yónni ci ñun moom la ñuy gis parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde c'est pas possible on ne peut pas discuter avec tout le monde c'est pas possible yéen a toog ba mûrir ni vous devrez quand agir en groupement ou bien en association kon dafay jaadu ñi ngeen jiital ngeen honoré leen nan ngeen leen di honoré seet liy yàq ak liy ternir image par vos biais de vos actions ngeen moytu ko du man rek maa ko gis nañu leen rafetal nekkin wi rafetal ànd bi parce que nekkin bu ñaawee rek ànd day ñaaw maag yow bu ñu bokkee bool bi nii tey jii nii war a lekk laax nga jékki-jékki comme ni ñu ko doon defee jamono sëlëm kenn walla xam nga def yenn affaires yi mais suba bu ñu pour ñu mën a toogaat day jafe. grosso loolu mooy équation wu waa làmb man nag promoteur laa di président wu promoteur yi Fallou mu ngi ñëw yëkki mbay yëkki ni mu ngi nii. bisu travail la leen di dafa metti pour wan leen rek cër bi ma leen jox bis bi seen président bi ko jàpp bis bi ak waxtu bi kii moo ko jàpp dama ko ne seetal bis bu la arrangé nga wax ma ma convoqué ci man dana wut hôtel boo xam ni di nga fa dugg di nga ne ci jàmm doo ñàkk dara du la sonal nga toog ñu waxtaan waaye nag lañ fay jëlee na doon tënku gor je vous aime bien ça veut pas dire que je vous laisse tout déedéet dañu fas yéene ànd ci benn événement nañ leen ci ànd ànd bu set incha allahu rabbi loolu dafa may dugal ci organisation lamb bi lamb bi dañuy jël police dañuy jël gendarmerie bien que mosu fa am parce que boo leen seetloo ba ci làmb Fallou njaay bu mujj bi euh, porté nañu préjudice ñi nga xam ni sax ñëwuñu ci lamb ba EDK ba ba biir ba arène national oto mënta circuler ci rek suñu ay bëgg bopp bëgg-bëggu bopp ak suñu ay comportement bopp dafa naa ni Babacar bii sax fekk na ma ci embouteillage bi mais président affaire bi metti na de ma ne ko ah xam nga ñun li ñu yor moom yàllaa ñu natt ñii ñu ngi nuy gërëm mais ñii ñu ngi nuy ñaan yàlla parce que li mu indi moo bari waxuma la nag fu Siteu war a jóge dem làmb waxatuma la ci dara mu ni la damay dox dem làmb ja doxu Siteu caaro yi jëm Pikine ah loolu àdduna bu tukki la alors dafay jaadu ñun ñu waxtaan ci suñu biir xool quelle est la conduite à tenir neex na trop maa am buzz ma yor noo leen ko sax euh, affaire bi bi ngay njëkk a jot am na noo leen ma yor scoop bi scoop bi maa ko yor nangam mais d'accord me na rafet mais si tëne bëret kii këf téléphone bi fàtte la ñu waxtaane woon ci hôtel Colonia ba du wàllu góor de président ñu ànd ci arène bi bis bi may def sama visite de sécurité damay ànd ak yow on fera des pour toutes les structures man nag damay dem ci làmb boo xam ne yombul ci man damay jël sama matuwaay yépp duma ma seet lu neex ma sàmba ak lu neex ma paate reetaan beeg caaxaan bi yépp fii la yam de dama leen di lu leer danaa ànd ak moom ba ñu définir ne président fii la gaa yi war a toog fii la ñu war a defar ba nga ni ma gongo ma ni la lan la laaj nga ni ma lii lay laaj ma jël ko defar ko teg ko ci sa loxo leneen lu ci beneen reporter dugg ça ne m'engage nullement nii de près ni de loin que loolu mën nañ ko valider salaamaaleykum <coughs> euh, bu ñu demee ci programme incha allah fii ak euh, semaine bi di jeex dinaa def une coordination j'ai même les éléments mais il faut que ñu make sure ba lu ñuy wax du am benn mbir boo xam ne dina ko déplacer tuuti danañ leen wax ngeen dem jëli Papa danaa ko wax mu ubbil leen buntam entraînement parce que nag mënul di wuyu euh, reporter bu nekk c'est pas possible je vais organiser benn rencontre spéciale boo xam ni dana leen recevoir ngeen daje ak moom waxtaan ak moom bu leen neexee sax ñu yokk ci boo leen bëggee yendu ak moom affaire bi mu rafet. danañ ko organiser ak Siteu incha allahu rabbi ngeen nekk ak moom bu ñëwee ngeen def li ngeen war a def affaire bi rafet. am na benn dernier face à boo xam ni danañ ko def ak ñoom aussi bu ñu paree ci loolu li koy tëj triplex lay doon ak ITV 2S Papa Sow toog këram Siteu toog këram man ma dem ci benn bërëb maag parrain bi wala ak sama ay nit ah ñu waxtaan ak àdduna loolu mooy ñett ñetti programme yi nga xam ni moom la ñu fas yéene déroulé man sax dama jëloon décision pour wax leen dëgg rek dootuma dajaliti Siteu ak Papa Sow coow li doy na sonn naa ci doy na sëkk man kañ fu mu nii li ñu waxoon rek en route vers le cinq rek maaleykum salaam na nga def waaw toogal gis nañu la di nga jërëjëf jërëjëf El Hadj waaye sa daanu bi démb terrain metti na démb nee na da doon sport waaye dañu jékki-jékki rek gis cuukeel bi ci suuf waaw donc loolu moo doon xorom si. moo doon sarax si. léegi pour le bi damay ñëw. waaw mu ngi ñëw waaw. PPV bi mooy mujj. parce que da nga ko évoqué. lan la. c'est bon. Euh, beneen bi ci des mooy sécurité bi. Euh, gënu ma leen xam ci réew mi ngeen dëkk. dañuy dem ci làmb boo xam ni metti na metti goo xam ni yéen boo leen tëddee yéen a ngi nelaw miñ man nelawatuma dégg ngeen wax baax moo ñu tax a fas yéene jël lu mu dee dee trois cent policiers trois cent gendarmes police ci biir gendarme yi ci biti ak fas yi parce que boo leen xoolee pour tour stade bi ak buntu yi niñ ciy duggee parfois coonoy làmb yëpp ci entrée yi la ci ñi mënta dugg buur jël otoom yàpp ci ñetti nit ni day dugg buñ dikkee ñu war a contrôler ñooñu ana seen passe non buur laa àndal maa koy téel ordinateur bi maa jaag bi war a def direct bi yooyu yëpp gaynde na leen ko bàyyi suuf ngeen yombal seen bopp liggéey bi mu yomb parce que man Alaaji Abdou wax naa ko bërki démb benn président bu newoon ci làmb ji mu ñëw mu ni ma policier yi nangam ak nangam ma ne ko promoteur bi bu xasee ba fay pa fay alkaat yi la commissaire ba di décider ak ay nitam man awma ci droit wax ci kon nañ leen yombalante liggéey bi nañu leen bàyyi bàyyi aussi di paasante badge yi am na ci waa presse bi ñoo xam ne danga leen di jox badge yi ba pare ñu wëlbatiku jëlaat badge yi dem ci giriyaas yi joxe ko wala yóbbante ko nit mu jox ko Cheikh Ndiaye ma la Cheikh Ndiaye ñëw dugg ci ñëw toog fekk ñun xam nañ lépp dafa fekk ni as gor kenn du ko toroxal waaye nag ci kaw mu gore bu dee dégg ngeen wolof nit mooy sagal boppam nit mooy suturaal boppam mais nga ñëw ne dañ lay jox accréditation ñu jël jox sa président accréditation ñu jox la sa bos nga dem jël ak sa xarit ak yëpp parce que seen benn waaye dóor na leen benn kóol nangam ak nangam am kenn koo leen yónni jox ko ko kooku dem sol ko daal di ñëw amul njëriñ c'est du vol tubaab ko tudde vol wolof di ko tudde sàcc la waaw bu demee nag ci contexte bi ñu liggéey goree la ak mbaadoo la ak ñàkk kóllëre donc ñu moytu yu sew yooyu sécurité intérieure bi Xaadim Njaay mii ku ko xam-xam ni mook alaaji Pape Abdou Fall benn kii dama leen di wax sama diggante ak moom du làmb kii yaayam mu ngi ci kër dëgg maa ngi fii ci àdduna moo ma ko dénkoon avant muy làqu ak mon ami mon frère Pape Mayel Diop ñoo tax kii ma jàpp lu ma am danaa ko bokkak moom lu mu am danaa ko bokk ak moom fu mu xewlee dana ma gis ci wetam fu ma xewle yit fu mu nekk danaa ko woo mu ñëw taxaw sama wet yàlla nag da koo dimbali mu nekk làmb di liggéey digganteem ak askan wi rafet ba mu am ci nit ñu baax tey mu créer société de sécurité am ñu jox ko aéroport mu yor ay business yu bari moom laa fas yéene jël ci sécurité bi nga xam ni mooy sécurité locale bi incha allahu rabbi nit ku dëggul taalibey xaadim rasul bi bu ñu jàllee ci loolu lamb bi buur wax nga fi lu am solo muy problème mu pay-per-view pay view loo xam ni lu ñu dab la ci làmb daf nu dab force et de reconnaître que dab nañu ñu ngi ciy liggéey mais du partie yépp a ko maîtriser euh, am na lu ci xew évoqué nga ko yàlla xam na ni tey laa koy door a yëg man du ma fenal mbindeef buy dox ci suuf parce que kenn yorul suma dépense nga incha allahu rabbi ñi ñu ko seqal danañu toog ak ñoom waxtaan ba loolu nga xam ni mooy seen préoccupation ñu waxtaane ko mu dañ loolu man alaaji Abdou Fall bu ma la nee ma làmb keneen mais sama làmb saafara wa sama làmb mënuma leen ni doo leen def direct làmb gi jeex mais man

waaw léegi daal. yàlla xam na ni ak Cheikh na Cheikh Saad bu léegi laay door a dégg seen problème bi man xam nga dama jege naa làmb sori naa ko jege naa ko sori naa ko mooy maa ngi ci làmb mais dama ne ci yeneen i activité lii nii maa ngi koy door a yëg nii Cheikh na Cheikh Saad bu nag laa lay waxal ki ma ko seqal danaa ci waxtaan ak moom ba loru te dooleen loru. loolu defe naa ni bu ma leen ko waxee war na leen mën a doy. du dëgg président. man nag loolu laa amoon ci lu may wax entrée yi. entrée yi yomb la ñu def Cité Papa Sow euh, jaune et vert trois mille francs la rouge bi cinq mille francs la rouge annexe bi dix mille francs VIP bi ñu def ko vingt cinq mille francs Donc, euh, à travers aussi notre rencontre, je tiens à saluer, voire même remercier encore mes partenaires. xëy na ñenn ñi sax bu ma leen remercier sama bopp laa remercier parce que dama ci bokk muy la banque agricole du Sénégal muy banque boo xam ni damay wax ni développement ak askanu Sénégal la fi nekkan ku nekk war nga fa mën a dem ubbi compte ci mbay mi lay yëngu di accompagner jeunesse bi di jàppale askan wi te mooy seule banque nationale du Sénégal kon damay invité sénégalais yëpp ñu daal di ciy dem man nag dama bokk ñoom it ñu am benn solution bu tudd agricash agricash moyen la comme yeneen solution yi nga xam ne day permettre ñuy jënd di fay di denc ah di maye di leble kon dama leen di invité encore ngeen télécharger application Agricash dina leen permettre ngeen mën a jënd seen billet làmb foofu danaa fa taxaw man sama benn billet jaayuñu ko avant làmb billet yëpp dañ koy jaay ci guichet bi donc képp koo xam ni gis nga billet avant làmb PAF production jàppal ni c'est pas un billet valable quelle que soit la nature du biais, quel que soit le degré de responsabilité de la personne qui vous l'a vendu, je ne suis engagé ni de près ni de loin dans cette affaire-là. J'en rajoute que, à part la Banque agricole du Sénégal, il y a Jojo Meuble mën ngeen dem ne ñëpp dem jëndi fa ay meubles la fa jóge yëpp Amérique la jóge waaw dara nekku fa cere bien que cere lu baax la ci réew mi waaw di raf gërëm aussi hôtel bii ñu dalal hôtel koloña hôtel bi aussi sénégalais bu am jom bu am fulla bu am fayda moo ko moom te yoru ci it benn c'est un ami Traoré Paté Baldé suma gars yi jàpp leen foofu la rien n'est impossible waaw gëm rek fi nga tegu mm-hmm. ñi fi ñëw ñëpp ñu leen di jox ñuy tabax hôtel gënuñu capable les sénégalais na mm-hmm. sénégalais yi gën a gëm seen bopp surtout la jeunesse gëm leen seen bopp affaire bi yéen ñi ñëpp ñeen ñi ma wërale caméra yëpp excepté les deux grandes télévisions boo leen gëmul woon seen bopp boo leen amul woon engagement détermination tey jii nii caméra yi yëpp jël ngeen ko dugal ko ci géej parce que li ngeen yor ay millions lay jar dem ngeen ba toog wéet seen boppu sangu tëj bunt sangu jaganaayoo sa loxo xam ni lii njariñ la moo tax seule la persévérance paye si vous n'étiez pas reconnu Je dis bien si vous n'étiez pas reconnu. Vous n'allez pas mériter d'être rencontré. am le président kon wéy bi ngeen jël mooy wéy bu baax bi waaye yor bu baax bi aussi dafay induire que ñu ut benn doxalin bu rafet bu baax boo xam ni day gën a renforcer crédibilité wu structure bi nga xam ni moom ngay gouverner. loolu daf ci am solo image dafa am solo xam na am na ñoo xam ne bu ñu génnee fii d'accord tu tu peux bel et bien être dans une bagnole wala nga ñëw solo ba rafet mais boo waxee gars yi ne ci am na ñoo xam ne mobilette la ñuy yor mais bu ñu rombee ñu ne gor saa ngi nii yàllaa koy def ci nit. kon gën leen a yokk la crédibilité de vos de vos institutions les institutions que vous gouvernez parce que institution ngeen yor société ngeen yor moo tax ngeen di am dépense ci kër ga. kon rafetal leen seen àndandoo rafet leen seen rafetal leen seen nekkin rafetal leen seen teewaay ci ndaje yi ngeen fexe ba bu leen jëppi kenn mais bu leen kenn jëppi looloo waral suñu ndaje bi defe naa ni j'ai été bien compris il aussi ma sœur directrice générale de ESEF ko xam Khady Diop Sow xam ni moom moom ESF entreprise Serigne Fallou nettoyage parcelle la dëkk c'est ma famille dañ ci bokk jigéen la mu ngi def lu rafet lu baax di raxas hôpital yi di raxas jumaa yi def lu baax kon dañuy ñaan yàlla jàppale ko ba ESF gën pick up dem ci kaw j'en profite aussi pour euh, remercier mon ami, mon frère Yougo Sow, qui est le directeur général de la Socosim. Socosim, xam ngeen moo tabax Sénégal ku fi ubbi ba pare rek ku fi ubbi léegi rek après la rek waaye li mu yor mooy bu baax bi. li mu yor mooy bu baax bi parce que ndakaaru démb ba léegi moo moo fi ne. waaw kon yàlla na ko yàlla jàppale. waxuma sax suma ay relation personnelle ak moom mais ni muy jàppalee làmb di jàppale sëñ Modou Niang di jàppale promoteur yi Gaston Thialis ñeneen ak ñeneen mais tout ça c'est à saluer c'est pas parce que jàppale woo Abdou Fall wala jàppale wuloo Babacar Ka rek dañ la war a kii non il faut voir euh, le socle le socle c'est-à-dire la euh, euh le label lamb nañu jàppale ñiy jàppale làmb parce que nag xam nga làmb yàlla dafa def ñu bàyyi ko ci suñu loxo tey am na ñu bëri ñoo xam ni bu ñu sañoon làmb faatu làmb daanu moi j'ai toujours dit ni xëy na xëy na ma pare ci Siteu Papa Sow wa ay jamono dama ne làmb du daanu alhamdulilahi rabbil alamin yàlla bi ñu nee làmb du daanu man rek kott dong kese maa fi yanu làmb ji di ci fay te mësuma ko non non je vais vous dire wóor na yàlla ak Cheikh na Cheikh Saad bu uldu Cheikh Mouhamad Fada uldu Maamin mësuma ko doxee mësuma ko man maa bëgg defi làmb mësuma sax xalaat ne woon ni dinaa ci dugal cinq millions yi mot mais dem naa ci lamb ba fay ci cent et quelques millions fay naa ci quatre vingt million fay naa ci lu ne te amul kuy taxaw sama buntu kër ni naa la un franc mieux toutes ces structures là yi fi jot a jaar dimbali promoteur yu mag yëpp mosuma ci xam buntu biiru ma sàmba ma paate nu mu mel kon sant yàlla loolu sant yàlla ba ma dimbalee ci challenge boobu parce que am na benn temps boo xam ni bu ñu wàccoon tuuti rek mu am lu mu gaa yi am ndam ci ñun mais alhamdulillahi rabbil alamin qu'on l'a très tôt compris ba tey mu permettre ñu lamb jëlaat benn élan mais comment vous allez réaliser voir même percevoir ñu ni làmb de daanu or que les travaux de l'arène nationale sont engagés mais attends c'est un c'est un déséquilibre amul mais am na fi man awma benn intérêt tëgg Modou Lo Gris Bordeaux lu may indil Modou Lo ay coono Siteu Gouye Gui Gouye euh, Gui Boy Niang Boy ñaa Garga mais fii lu ne def nañ ko fii on n'a pas à crier haut et fort qu'on a fait ceci qu'on a fait cela seuls les Sénégalais vont juger non loolu lépp jaar na fii mais li ma bëgg mooy ngeen jàpp tey loolu bañ koy def bis yu mel nii la ñu bëggoon ñu dem ba une émergence xam nga développement bi ñëw ngeen ñëw bokk am ci seen loolu ni yóbbu su ko defee ñun ñu rocc ko ndànk nag dem dugg ci leneen bi mais alhamdulilahi rabbil alamin je pense que loolu laa amoon ci lu ma lay wax gërëm leen sant leen di jox alaaji xaadim njaay mii nag kàddu mu ñëw fas yéene waxtaan ak yéen tuuti suma xarit la suma rakk la gor la ciment la benn yoon lay tooy te it ku gëm la man kenn yorul suma kër kenn feesul sama bët du dëgg su ma la nee kii gor la rek gor la man daal li tax ma woo leen wax naa leen ko Siteu Papa Sow le 5 décembre drapeau Mame Boye Diao c'est un ami un frère koo xam ni ba ñuy gone la ba léegi muy responsable politique APR Kolda di directeur des domaines bisam sama bis la bu ci yàlla yóbboole jàmm ak salaam boo leen ma gisee doo leen ma xàmme parce que ni ma ci fasine yéene taxawee sama bis la maa ko moom du bisu promoteur bi làmb ji ah ñoom Fallou njaay ñoom Mbaye Yékini ñoom euh, Assane Ndiaye gars yi ñoo koy organiser man ci leneen ngeen may gis waaw danaa ànd ak yéen nag boo ñu jub ci làmb ji mais bu ñu duggee ba bu ñu demee ba ci bisu làmb ji damay rocciku joxe lengeey man dem defi leneen parce que sama bis la lu mu jar danaa ko def pour la réussite ma fas yéene ci ànd ak yéen mais it ma bëgg it na ànd bi rafet ngir yàlla wa rasulullaay qu'il lie ait pas de traître entre nous gars yéen may dégg qu'il y pas de traitre entre nous traître c'est quoi dañu bàyyi suñu lépp yàlla xam na ni waxtu bi may wax ak yéen maa ngi amaat beneen réunion mooy génn fii falaa jëm dama ko bàyyi président bàyyi ngeen bàyyi ñu ñëw daje fii on a eu à tirer des conclusions xam ngeen ko xam nañu ko nañ leen ànd ak suñu sago moytu yenn bëgg-bëgg yi ba ñàkkal suñu bopp fayda je pense que le message a été bien compris mënoon naa woo buur mu indi stafam ñu toog suñu biro wax ko mais damay bañ su boobaa ñu ni yëguma dégg nga wax baax wala les conclusions ne m'ont pas été versées et en ce moment-là vous seriez dans votre droit le plus absolu yàgg ngeen di dem ndaje xam naa ni dañ leen di signaloo bu ñuy dem ku ne ñu jox la paas waaye man liste bi maa ko soxla man ci sama bopp ba xam ñan laa toogaloon ba bis bu ma gisee ku def naka sudul noonu maa raw FBI na FBI ci boppam maa waraw ma wax leen man sama lépp enquête maa defar liste bi ba xam ni bu ëllëgee si y a un fauteur que je souhaiterais pas bu amee bu ma ko téyee ma ni fàttalikul suñu altine ga te dañoo fayoon hôtel ba pour waxtaan ñëpp toog affaire yëpp rafet mu nice donc suma gars yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di jox suma frère Khadim Ndiaye lépp bëgg mu rafet rek bëgg seen business yi pick up bëgg foo leen taxaw ñu respecté leen et ngeen gën a professionnaliser affaire bi. gars il faut que ñu commencer sol ay gilet à l'effigie de vos organisations il faut qu'on vous re... il faut que ñu xàmme leen te leen sol ay gilet yoo de di simbi di ko abale non mais c'est vrai il faut qu'on puisse distinguer qui est qui Babacar bàyyi ma waaye il faut qu'on puisse distinguer qui est qui mais bu ñu nee nii kii fait quoi bu ñu nee nii rek kenn këf daw dàq Abdou Fall xaadim ne ko bul jàll mu ni ko maay diw carte baa ngi nii mais non bala mu xam carte baa ngi nii rey na la yàgg na seen marché yooyu ñuy marché bu ñu la ko nee kar mais boo amee kar jaag dee nga bala gaa yi xam ni yaay diw pensez à plus vous professionnaliser pour donner plus de visibilité à vos organisations parce que visibilité boobu mooy permettre boo leen jàkkaarloog policier bi mu xam nan lay taxawee ak yéen ak ban taxawaay lay am ak yéen mais sol sa casquette bu jaune rek ak sa lakos ne man maay leeral mais attends yow looy leeral yow looy leeral yow avant ngay leeral rey nañ la mais regardez les plus grandes guerres fi am problème ci àdduna bi yëpp da ngay gis ni les journalistes bu ñu solee seen gilet wala nangam ak tàngam gars yi ils ont beau tirer ils ont beau faire mais di nga gis toujours journaliste bi mu ngi taxaw ci kii tirer mais kenn du ko effrayer vous devrez quand même vous inspirer de ça si vraiment vous croyez vraiment à votre avenir ah man kañ dama ni seen patron seen président la non dama ni buur a ngi nii bëggee gilet yu ñu leen di jox man PAF production mën naa ko accompagner mu am gilet non je vais vous dire non non. non non dama lay wax rek xam nga loolu daf nuy permettre daf nuy permettre que njaaxum du am mais dafa rafet quand tey ñu ni fii tribunal tribunal caméraman yii ak yu mel noonu ngeen sol gilet rafet ku nekk sol ko mais on on vous doit du respect mais boo mel ni maam sa mbase ñëw taxaw ah bala ñoo xam ne Mamadou Ndiaye la dee na yàgg na. ah non solu leen waa mais bañu ñu nga solu mais demal FIFA demal fu nekk mais carte bi bala nga ko génne dafa war a am lu ko yiir ba pare. kon contribution la de c'est pas une chose que je vous force mais dam leen bëgg wax ni leen ne. boo leen bëggee sécurité bi respecté leen boo bëggee nit ñi jox leen cir xam ne vous vous êtes organisé en professionnel il faut vraiment tenir de votre image comment en essayant d'avoir le minimum de logistique minimum de logistique bi bi ko njëkk a gouverner moom mooy liñ lay xàmme mooy gilet mën nga sol sa ñetti abdu sol sa gilet mën nga sol sa costume teg ci gilet parce que boo jàkkaarloog gémi bi bala ngaa génn am na gémi yoo xam ni bu affaire bi tàngee tàng du fa nekk naan la ana sa barseeg nangam ak naan dañ lay ba bax mbaa ñu maas la mais boo solee sa gilet dañuy xam baax ne gaynde kii jarte jage parce que c'est la presse kii loo ko laal li ci xew moo ëpp loolu et gis ngeen événement yi fi am yëpp journaliste dañ leen bàyyi et yéen ngeen baal ma une partie dañuy yab làmb ñi ci dem ñëpp au front bu marché amee wala nangam dañuy sol gilet bu dee làmb nag ngeen ni dung ñëw ci suñu kanam bëgg ñoo indil wax ju bari nañ leen ko moytu ngeen baal ma benn entre parenthèse la woon rek maintenant votre vie c'est votre vie hein maintenant le modèle que vous choisirez cela vous incombe hein? mais c'est juste rek benn rage bu ñu leen doon defal ñu xam ni suñu ay rakk ngeen ñenn ñi suñu ay doom lañ ñenn ñi suñu ay jarbaat lañ day jaadu bu ñu amee ndaje yu mel nii ñu fàttali leen xam ni c'est le minimum dama amoon benn professeur philosophie boo xam ne boo ko mosoon wax ne ko comment faire pour réussir moom ni la il faudra s'armer de garanti intellectuelle xam nga ni loolu c'est une réponse boo xam ni élargie garantie intellectuelle moom mooy demal nga jàngi le minimum boo ko amulee doo dem a xaadim yegg ci jàmm kontaan nañ ci gars yi bëgg naa leen j'espère que on ne sera pas déçu ah. asaw li ngeen ciy gis yëpp. lëns mu ngi ne leen jugal la te loo xanaa dafa tardé. waaw kii mooy réalisateur u PAF production. daf ma bay bàyyi nag France ma sonn trop ci tàngoor bi quoi. léegi président vraiment. yàlla na yàlla dolli jàmm li ma la mën a wax mooy euh, xam naa ni jamono neexul te metti na si vous voulez bien moi je vais offre je vais vous offrir des gilets pour la presse yi nga xam ni structure yi nga yor man personnellement je vais m'engager tu vas trouver le contenu de chaque regroupement du dëkk mooy dinaa la wutal benn loowu gilet pour ñaari structure yëpp xam nga loolu li ma ci duggee yëpp mooy pour que ñu gën leen a jox cër mais nag pour ñu jox la cër aide-toi le dara t'aidera dégg nga baax il faut que ngeen respecter seen bopp defar seen taxawaay crédibiliser seen bopp du dëgg ba ku leen gis jàkkaarloog yéen jox leen cër loolu nag dafa am ay jalon informel bi war na jeex mën nañ ko def ci ndaje yu mel nii parce que ça ce sont des rencontres privées vous êtes invités mais quand vous allez en public en tant que presse il y a le minimum président je pense que PAF Production dina la offrir deux lots de gilets que nga garder ko événement yi bu amee yaay dem nga sélectionné ni ñii ñoo war a dem nga jox leen ko après y aura le chargé de logistique qui va récupérer après pour que la prochaine fois vous redonnez à d'autres c'est l'objectif visé c'est vous protéger d'abord vous vous conforter dans votre rôle du dëgg gën leen a jàppale mais itam ngeen gën a jëmmal seen bopp man daal loolu laa leen di ñaan defe naa ni li ci des mooy gërëm la sant la. parce que idée bi ci yow la jóge yaa choisir ndaje bi. choisir heure bi. manil ak bis bi man ma wutal la fu ñu daje. bien que ñenn ñu sax ñu may sànni xeer naan ma kër yëpp yaa ko xam. Mm. mais yenn grand yi ñoom ay xeer lañu yor. mais man xam nga xeer a ma jig parce que man dama ci dund. man déggoo ma de. xe man bu ma xëyee te coow ñu ma waxuñu ma. du baax ci yow du dox. <laughs> dégg wax baax mais nag yàlla nay doon li baax. déggoo ma de ah. cest dire que coow bi du doon coow bu ñàkk fayda du dëgg nañ leen fexe rek di gën di am ay performance di gën di positif woowuñu leen fi parce que dañu leen ñëw fii pour xeeb ñii wala pour wax nangam ak nangam dañ leen woo. pour ngeen xam ne rek ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lii mësul am ci làmb tey lay door a am dañ ko waxtaane ak kuréel gi nga xam ne yéen ko fi teg muy président buur ak ñii ne ci ñoom Fadel ak euh, soxna pël bu rafet yow Awa Sow ak yi daal yi donc biñ ko waxtaanee ñu ni nañ leen daje ñu waxtaan bu boobaa kenn du ñu yëgu leen man nag ci sama yu sew ak sama enquête moo tax ma defar benn liste pour xam ñan laa doon waxtaanal bu ëllëgee lu ci mën a am ma mën a am repérage comme ni ngeen di defee repérage yéen itam dégg ngeen ñu ngi leen di gërëm di leen baalu àq di leen baal àq yàlla na yàlla dolli jàmm lii ñu namm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin dafa naa ni may yëkkali Thank you.